Pawlish Pawlish barke Serigne Bamba Mbàkke ragal du def lii Viviane def Pape Cheikh billaahi wallaahi taalaay ragal du def lii ah waaw waaw waaw Pawlish man damaa ñëw noo taxawal rek Vivi taxawal Vivi taxawal rek Pawlish Pawlish damaa ñëw Vivi jox ma <laughs> koo bëgg naan Viviane kii de boo ko naanee da ngay boo koy naan di coroxaat moo te osa boisson bii Amérique lay jaayee Anada bii. Canada bii ah, bii nii genre jinjeer la xoolal koko bi. kii boo ko naanee coroxaan boo ko naanee coroxaan boo ko ila la sokola la ilaha illallah barke Sëriñ Bamba Mbàkke ay lii kañ tegal fii rek ñun moom sàkka mi rek la ñuy def la ilaha illallah eh Pawlish xam nga ni xolo xolo xolo xolo xolo xolo xolo Philippe xolo Philippe ak Zeyna la ilaha illallah mais baxaw mais baxaw ragal du def lii Viviane mooy waajal clip bu doy waar clip bu àdduna bi yëpp di coow soo bu àdduna bi di waaj yow bàyyi loxo kii yow moom barke sëñ Bamba da ngaa war a bàyyi kii barke Serigne Bamba mais daal Pape Cheikh yóbbu naa ko Màkka yóbbu naa ko Màkka de waaye yow nag yow moom loolu direct laa ko waxoon kii dama ko bëgg Viviane kii dama ko bëgg ndax nit ku baax la nit ku gore nit ku yiw nit ku am ay valeur nit ku respectueux nit ku digne nit ku am yërmande ci doomu aadama nit ku tontuwul xuloowul coowul détaayul buggul daraay àdduna lépp rek yàlla la ko wér ma ne du barki sëñ Bamba gis nga ci nit ñi ne nii bu fa newoon tey ni ngi tabax ay R plus de 50 fois waaye dignité am ak valeuram la topp moom la jàpp kon yàlla na yàlla guddal sa fan laa la wax Pape Cheikh